ñoom na su yor wàcc na jël na Tapha Tine jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fii ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam ñi ngi fii ci yaraax open press bi nga xamante ne bii Moussa Ndoye le requin de yaraax moo koy def ku ne xam na ne la vingt 26 juin fële ci arène nationale suñu papa Gaston Mbengue la Don King de l'arène dafa tëgg tàkkusaanu làmb bu mag diggante Sa Thiès ak ki nga xamante ne bii moom mooy Moussa Ndoye Moussa nag nee naa la moo def li nga xamante ne bii moom mooy 16 combats am ca 14 victoire Moussa Ndoye mi ngi dugg ci làmb saison 2005. 2006 mi ngi njëkk a ak ki nga xamante ne bii mooy Jomaay mi ngi njëkk a bëre ak Jomaay daan ko Moussa Ndoye moo daan imposé Mansour Moussa Ndoye moo daan Amadou Camara Moussa Ndoye moo daan Ama Junior Moussa moo daan Tyson 3 Moussa Ndoye moo daan ki nga xamante ne bii mooy Modou Anta Moussa moo daan Bébé Saloum daanaan bu mag bi Moussa Ndoye moo daan Mamadi Ndiaye Moussa Ndoye moo daan Dolf Moussa Ndoye moo daan Aliou Seye numéro 2 Moussa Ndoye moo daan Tonnerre daan Lagrose ndaanaan bu mag boobu moo ñu fi ànd tey kooku mooy Moussa Ndoye am tàkkusaanu làmb bu mag nag yëpp client bu rëy ñu koy wax ki nga xamante ne bii mooy Sa Thiès doomu Double Less rek ku Balla numéro 2 kooku moo ñu andi fi nga xamante ne bii mooy Yaraax dañuy dem rek xool ko ba xam ban état de forme la toll waxtaan ak moom incha allah naka lay préparer combat bi ay ca Mansour ñu doxal dugg.

Mansour Moussa Ndoye ngi noonu waaw ma ngay wër géew ba di saafantoo ak supporter ak fans club ay ca jaajëf champion Moussa noonu le requin de Yarakh noonu doomu ndeyu was jàmbar oh doomu ndeyu loo soow waaw waaw Moussa Ndoye ay doomu ndeyu lañu ñaari champion benn takkusaan ey was jàmbar sigil ma lay sil ca Mansour ay ca Mansour Moussa Ndoye ngi doon di def ay étirement di ñu ko gisee nag mi ngi ci état de forme macha allah mi ngi def ay étirement mi ngi ñaq waaw waaw mi ngi jël benn kol bu weex teg ko ci bopp bi ma ngay ree gis nañ ci moom maximum de confiance sol benn t-shirt bu blanc bu ñu bind Serigne Babacar Sy waaw waaw. waaw Mansour Moussa Ndoye ak coach sam boxe lay entraîné waaw waaw gauche droite ca Mansour waaw waaw Weuz jàmbaar a ngi noonu xam na ne moog Moussa Ndoye ñoo bokk benn takkusaan bu ñu war a bëree bokk benn écrit bu ñuy jógee ñoom tamit ñoom ñaar eh yaraax am ngeen sas ay ca Mansour cosaanu leboo ngi noonu ndaw rabbi na ngi noonu gumbe ngi noonu waaw lebu yee ko moom da ngay fecc feccu lebu jóg gumbe say loolu ku wax yaraa xam na dëkku lebu la ku tudd Moussa xam ne lebu la waaw waaw fans club baa ngi noonu supporters yaa ngi noonu ñi ñooy topp Moussa Ndoye arène nationale waaw waaw cey lamb waaw waaw oh. deretul la buuba jóg na deretul la buuba jóg na nee la ku tudd sa dëkk faaw nga gestu maa la ko wax waykat baa ngi koy way du ko jox xar bi waaw waaw cey labu doomu yarax baa ngi noonu waaw waaw eh loolu say Moussa Ndoye say doomu yarax waaw waaw naa la deretu lebu ba jóg na say loolu Mansour ñëwal waaw waaw ma ñëwal Moussa Ndoye daa mel xol ba tooy na Moussa Ndoye ngay jooy Mansour jëlal ma ko jëlal ma Moussa Ndoye bu baax Mansour ña nga koy jox ndox muy naan wayee ko dugg waaw waaw jëlal ma ko bu baax sumal ma ko Mansour waaw kay ma nga noona bët ya taana yaram ya daw na wayee ko dugg cey loolu ñoo ngi koy jox ndox muy naan bët yaa nga xonq cur cey Moussa Ndoye doomu yaraax Mansour Moussa Ndoye ngi def ambiance Moussa Ndoye ngi yëngal yaraax waaw waaw jigéen. na nga def ñoo ngi si jàmm. tey Moussa Ndoye di def open press lan nga yëg. waaw yëg nañoo kontaan ndax Moussa dafa nekk xale ba nga xam te ne dafa yaru dafa baax déggal waa Yarax moo waral lii yëpp ñëpp a ñëw fii jàppale ko soutenir ko dooleel ko ba incha allah jour ja yàlla may ko ndam ci barke Serigne Babacar Sy loolu lañ koy ñaanal nit ku baax la ay mbokkam baax na moom baax na. nu ngeen ko gisee seen xel dal na ci moom. sunu xel dal yal na yàlla lafal ko cat yàlla may ko ndam bu sedd guy ci kaw Sa Thiès incha allah barki Serigne Babacar Sy. nan ngeen dëkkee ak moom ci koñ bi. jàmm ak salaam jàmm ak salaam seq ak nit ñi jàmm salaam ka fooree la xam ak ñëpp wallaahi nit baax la. maa ngi fi. mel ni da kontaan. waaw damaa kontaan ndax tey yaraax xewle doomi yaraax Moussa Ndoye di ku baax barki Seydina Mouhamed yal na ko yàlla may ndam. yaraax gépp loolu la ñuy ñaan yal nañu yàlla may ndam ci darajay Serigne Babacar Sy mu yaakaar méng mbooloo. xale bu jigéen bi na nga def. kontaan rek maa si jàmm. maa si jàmm bu baax. lan nga yëg lan nga yëg. kontaan kontaan rek. kontaan ca kaw daan rek daan rek. nit mel ni da ngeen am confiance. waaw nañ confiance ñun ñëpp yaraax yëpp am nañ confiance yaraax yëpp. am nañ confiance. mais mais champion ngeen dajal Sa Thiès bu mag. Sa Thiès ragaluñ ko ragaluñ ko tiituñu ko sax catuwe catuwe ragaluñu ko du yomb. yaa ngi si jàmm yaa ngi xool mbër di jooy lan moo xew. yaram a daaw lan moo xew lan moo tax ngay jooy. xër ci moom rek. da ngaa xër ci moom. gis nañ la depuis ban fi ñëwee ba yaa ngi sonn ci organisation bi. loolu la loolu la dama war a sonn daal. nan nan nga ko gisee nan nga gisee état de forme bi mu andi. macha allah ñun daal pare ci lépp yàlla ñu yàlla jàppale te may ñu la si barke yonente. moom tàkkusaan bu mag digganteem ak Sa féetewoo Sa Thiès dara rek ñaan yàlla rek ni ñu ko daan ñaanee rek waaw ñun pare nañ daal côté yëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm may ñu ndam si bat ñu yàlla ñu dem si bat Serigne Babacar bi mu yaakaar. nan ngeen dëkk ak moom ci biir koñ bi. jàmm rek amal ñëpp jàmm wàcce boppam waaw xale yi ñooy ay moromam macha allah. macha allah moom. mu mel ni koo xool di ko ñeewantal quoi. waaw dama ko ñeewantal nag parce sama xarit la sama nijaay la sama lépp la dafa yaatu sama lépp la jëlal ma ambiance waaw xoolal xale ya la ñuy xoolal ca kaw et ya Mansour xoolal ca kaw étage ya jëlal ma borom tengaade ba Mansour xoolal ma borom tengaade ba fu mu toll. ay waay Mansour yaay jinne kenn du yow ndaanaanu ndaanaan yaa ngi noonu la benjamin des caméraman barki yonent bi xoolal borom borom tengaade ba fu mu toll di filmer Mansour filmer ma borom tengaade ba ma koy nga koy filmer waaw waaw cey Moussa musa de Moussa ngi noonu doomu ndeyu Wos jàmbaar ak caatu yaraax waaw waaw cey Mansour jëlal ma yéen kay nga ne Moussa Ndoye ey Moussa Ndoye waaw waaw Moussa Moussa Moussa Ndoye cey waaw waaw bakku Eumeu Sène ko njuuk loolooy njuuk waaw waaw ay ca wës wës jàmbar wës cey Mansour Moussa Ndoye ngay njuuk di ñëw waaw waaw ma ngay joos cey loolu say ndaanaan ngay wëndeelu ca Mansour jëlal loolu loolooy cool waaw waaw le 26 juin incha allah nga jëm takkusaan bu mag. Mm. sa diggante ak Sa Thiès. Mm. naka nga nga toll ci préparation fan nga toll ci préparation bi. waaw balaa may wax damay nuyu nga ñu baal si koñ bi may tudd si ko turu koñ bi may tudd quoi muy booy yi nga xam ne ñoo nekk dëkk Feeraay waa Feeraay yi li tax may tudd seen tur dafa am ñaa nga dañoo demoon campagne ñu bëggoon tas campagne pour fekkee combat bi. tey ay coow am si bañ arrêté leen maa ngi ñaan yàlla na leen yàlla na leen ñu teggi seen loxo ñoom ñëpp bañ ñëwaat fii sago bi fekkee combat bi waa Feera yëpp maa ngi lay nuyu ñu ñaanal leen yàlla génne leen waa Feera yooyu mu jërëjëf. jërëjëf gannaaw ba nga waxtaanee ak say mbokk. gannaaw say mbokk ba noo fi. Hmm. ñu bëgg. waaw Sa Thiès. dëgg la naka nga ko waajalee ak fan nga toll ci préparation bi. waaw ñun noppi nañ ñun noppi nañ dañuy mottali nii rek muy tey pour supporter xam seen mbër si ban état la nekk tey ji nekk nañ si lépp lu war lu waroon si combat bi def nañ ko lépp lu waroon def nañ ko entraînement yi mat na su may entraîneur jërë ngeen jëf su may staff jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax a baax lépp mat na yàlla moo des yàlla mi am ndam yàlla nañu yàlla may ndam ci barke Serigne Babacar Si remarque remarque bi ma def ci yow mooy dama gis sa xar dafa doon entraîné la la lii contact la contact la xoosu xoosu yi ak tàngoor bi xoosu yi karaw yi rek moo waral mais du question war a jàng xeex wala jàng dara mais Moussa Ndoye mbër la xam ne lépp lay jàng bu mattante bu amee sax dama koy jàng waxtuma xeex waaw. lépp la ñuy xaar. Moussa Moussa Ndoye New Look muy ñëwaat ak Moussa Ndoye bu bees tax dajji déggoo li ma la sama rakk day bëre daan jox ma lengay yi ma bëre daan ci kàttanu yàlla. est-ce non mënul def pression si man tàmm naa bëre di bëre mbapat di ànd ak ay nit ñi nga xam ñoo bokk benn écurie kon tey bu ñu nekkee fii wax dëgg yàlla sama rakk war a bëre daan jox ma caabi ji ma tëdd nelaw daan. Moussa Ndoye combat bi lan la ko jaral dëgg-dëgg. lépp la ma jaral. lu mu lu mu jaral yarax jaral na ma ko te yaakaar yarax la gën a jaral lu ñu jaral yarax combat bi jaral nañu ko. combat bi waaye rax dañ ñoo yónni yàkkamti ñu. fan nga teg combat bi. fu sori Moussar Moussar maa ngi koy nuyu baax muy président fan club euh, génération xarañ jërëjëf bàyyi woo ma benn yoon jërëjëf. combat bi lu mu jaral yarax rek jaral na ma ko te yarax dañoo sonn si combat bi kon masama ak man. yéen ñaar ñëpp ngeen jógee ci defet. waaw nga jógee ci defet mu jógee ci defet. waaw. ñaar ñaari ndam mooy dugg deux ans trois. ah deux ans trois. géej waaye dama fa dugg duggaat fa duggaat naa. dugg géej waay. dama dugg génn duggaat génn damay duggaat damay génnaat. dina may dugg génnaat amu ma yëpp ñëw sama siège laa fa teg. ay man. waaw. Hmm. waaw moom waxee nam loolu li mu xalaat rek la mais bu nee combat bi lim ko jaral moom jaraluma ko xaw ma fu mu ko teg mais yaakaar naa ni daj naa coono lu mu musul daj coono ci combat def naa lu mësul def ci combat dugg naa lu mu dugg ci combat tamit def naa lu mu musul def ci combat yaakaaruma ko woon di waaw du nuyu waa Baasul Baasaar ak waa Caalaan maa ngi nuyu ñëpp waaw. parce bu ma am yokk ñeex dolli cere yokk ñeex. adversaire bu mën a am dama yokk cere dollu ñeex parce que dama bëgg dem ci kanam dama bëgg a jóge fii bëreetu ak roi des arènes. du ma naan sóor kenn su ma naree sóor mbër si lam ma bàyyi jënd ak encore soixante-dix mille ma demaat géej. xam nga ci a baax. li jëntuwuma ko sax sama bopp laa xam. li jëntuwuma ko li sama bopp laa gëm sama bopp laa xam li ma liggéey laa xam. wax naa la ko sànq yéen ñaar ñëpp ngeen jógee ci defet ñu gis mobilisation bu mag bi yaraax def tey sa diggante ak waa yaraax estat lay raw waa yaraax nag mooy li ma la man dama juddoo yaraax nekk fi pépinière xale laa juddoo fii màggee fi yaroo fi ma toog ay mag yu nekk fii ni ma musaa man nga la naam ñu ni ma yaraax fu la neex jaaral amoo fi baaraamu duñ la joxoñ baaraamu tuuma man ko ndax lan mu ni ma liggéeyu ndey añu doom sama yaay dafi nekk ba ni muy jëndee këram moo mook sama waajur bu góor dem musuñu fi def lu leen di jéppee wala lu leen di xarabee kon tey bu yàlla defee ma nekk yarax aw ma dudul nekk soldaaru yarax man maay soldaaru yarax lu waa yarax bëgg loolu laay def luñ ko bëggul duma ko def le 26 lébu yi gi ñëw ñëw lébu gi ñëw ñëw fukk penc ak ñaar yëppay ñëw. jar rek ma indi ko man ba léegi xaw sax la laay bëri samay entraîneur ñoo fi nekk luñ ma wax loolu laay bëri. waaw. kon man siis wës jàmbaar mi sama rakk sax mën na maa conseillé mu bëri man ku ma conseillé mu bëri supporter sax est-ce que duñ ñoom ñooy wax lu ma war a bëri. man conseil rek laay bëri est nekkul supporter yi ñoom ñooy wax ma bëri man war a def. conseil yi lay rek laay bëri. yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal vraiment la tawoon 2012 ba léegi moom moo ko feeñal di wax ni vraiment kontaan naa trop kontaan naa trop surtout Serigne Babacar yàlla na la yàlla fay soo ba léegi yaa ngi nekk ak man fii ci coono ji ci tàngoor beeg yëpp Mohamed jërë ngeen jëf kontaan naa trop vraiment yéen ñëpp nag waaw kontaan naa ku si ñëw émission ak Moussa Ndoye da ngay may gis da ngay joxe lépp li nga mën si wàllu caméra man tamit moo tax su may ñëw en fond di kër laay deme mbégte laay demee Aly Dia encore une fois jërëjëf mais di gërëm kenn kot si man muy kaa xam muy nongo fay dama koy gërëm Pape Diouf dama koy gërëm di gërëm waa waxandoor waa ridis soldats yi bàyyi ma kenn terroriste yeeg bàyyi ma kenn yarax mais waa tëfët ñëpp maa ngi gërëm ñëpp Pape Diouf nongo fay Tigana Alain aw ma seen fay tey jii am na kaa xam ne lii yëpp war na ko fekk muy Katim Touré suma suma suma xarit la te yàlla def na dem na yàlla na ko yàlla yërëm suma maam xaay suma maam xadi yàlla na fi yàgg ànd ak wér combat bi combat woowu la te kombaa bi damay wax waaye rax billaahi wallaahi wal kitaabi lu ma si mën a gañe Baye Ablaye jën moo ko moom man Baye Ablaye jën lu ma gañe si kombaa bi Baye Ablaye Diène moo ko moom naka yarax ñëpp xam combat bi lépp lu ma si mën a am ba Ablaye Diène laa ko laa ko jagleel ndax suma baay la heure bu fi nekkoon waxatuñ ko mais grâce grâce yàlla moo xool moo fi jële dina may lu ëpp loolu ba Ablaye Dieng yàlla na ko yàlla yërëm te xaral ko ak Dieng ayce bu nekkee yarax woo naa la bàyyiwuma kenn njóogu Assane Ndiaye jërë ngeen jëf waa ko ñu wàlli daan fi nga xam ne fi laay ngemboo bu kenn ki kenn mais nag waa ko ñu wàlli daan bàyyiwuma kenn ko ñu wàlli daan bàyyiwuma kenn ñëpp génn leen génn leen yëngal ci kaw maa moom ci suuf suba teeri yéen may dégg ndax yéen a may dégg yéen waa Yaraax yëngal leen ci kaw maa moom ci suuf zone technique maa ngi koy sant di ko gërëm def na lu lu rëy yéen xam ngeen li may wax zone technique ku ne xam na zone technique zone technique yëkkati na ay 317 may ma soxnaam jàpp si sama combat bi kon li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal lépp lu mu bëgg agence immobilière kon zo li nga bëgg si ak si Sénégal man maa la koy ñaanal lu la kenn musul ñaanal yàlla nga doon président CNG maa la koy ñaanal yàlla nga ko doon mais nag di xamal ni Sa matul 1000 kees. matul 1000 kees. matul 1000 kees. matul ma jàpp ko mu jeex jeex tak ñaari kaar laa koy def waaw dëgg la dëgg la waaw dëgg waaw loolu ah loolu loolu maa ngi ciy maa ngi ciy profité di wax ni loolu lépp xelu suma papa Ngouda Sarr la waaw suma xelu papa Ngouda Sarr la vraiment loolu noonu du dara xëy na dafa supporter mbërëm rek pour yàlla bëgg mbërëm yàlla may ko ndam waaye xëy na yàlla àndul ak moom yàlla àndul ak moom comme ya ma xam ni suñ ko gaañee fii samay responsabilité lay nekk ndax danaan Moussa Ndoye la ñuy wax man du ma ko digal mbër te damay ñaan mbër mu koy digal kenn ci supporter na nga ko baax loolu baaxul parce que bu ñu ko jàppee gaañ ko mënoo ko jox dépasse mënoo ko jox dara maa ngi ñaan loolu na ko yàlla nañ ko yàlla faxasal ba buñ ko amati di wax caatu yaraax yal na ko yàlla may ndam loo Loso yal na ko yàlla may ndam di wax ni koy wax te wës jàmbaar maa ngi nuyu waa ko ñu wës jàmbaar yëpp nag ak képp kuy bëggee Moussa Ndoye te ko yaakaar naa ku war a bëggee Moussa Ndoye war nga mën a bëggee wës jàmbaar le 26 may ñaanal wës jàmbaar yal na ko yàlla may ndam mam booy jàppal leen wës bu baax a baax a baax yàlla may ko ndam jërëjëf kontaan naa trop ndaw rabini sama yaay yi aw ma seen fay yéen ndaw jigéenu ndaw rabini ba ma jàppee ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen bàyyiwu leen gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp i fay jërëjëf kontaan naa Ibou jëf sécurité bi sécurité bi may ma ñu wax si sécurité bi tuuti waa waa sécurité bi may ma ñu may ma wax waa sécurité bi waa sécurité bi jërëjëf vraiment une heure ba léegi yaa ngi fi di la jàpp teew bàyyi coow coow dafa am wala waaw man li ma wax démb wax naa ko si télé nee naa Sa su bëggee ma defar setam tey si guddi moom na defar sama di balaa ñuy bëre ñu jox ñu échangeante pour fair play wës jàmbaar Youssou Ndour mu ngi may mu ngi ñuy dégg su bëggee na def set wës jàmbaar defar setam mu defar setam ñu war na ñun weerax doomu yarax xam la ñu xam jàmm la ñu xam ak laas ak salaam ku ñu wax nag ñu xuri la ñu ngi sant bi la maire bi la maire la wuy di way day tuur ay xewal di jooy lan la waaw sama xel moo dem ci sama ci sama waajur waaw loolu rek la sama xela dem sama waajur tey jii ma am ka nga xam ni ku ma jege woon lool wallaahi azim ku ma jege woon loolu muy Sidi Ndiaye moo tax. ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na Tapha Tine na Tapha ngi dóor ci suuf attention Sa ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na